néemeek fii si diwaan Louga jaaxal na askan bi fay yeewoo jaaykat yi nag di ko néemeeku saa su ne rawatina seeraayu njugum ceeb bi ak diw bi ak yu ni mel. dafa seet trop moom franchement. bu dee ceeb bu dee parfumé la moom mi ngi jaay euh, vingt quatre mille bu dee bongu mi ngi jar euh, vingt mille mais avant avant avant avant affaire yi nag moom parfumé gënoon na wàññeeku dana jar ba ay dix huit cinq cent dix neuf mille booy xool. Pongu tamit la même chose dana jar ay 15000 à peu près diwlin bi tamit la même chose diwlin dana jar ay 14000 booy xool deux ans par avant mais fu mu toll nii actuellement diwlin mi ngi jar ay 19000 18500 prix en gros. jaaykatu légumes yi nag ñoom ñoo ngi ñaxtu seeraay njëg yi la. ah njëg li njëg yi de cher na moom jafe-jafe moom mooy loolu xam nga ko lépp a cher. ah njëg yi seer na kenn jëndul moom la ñuy jànkonteel. gouvernement bees bi yaakaar la ñu am ci moom. mu jàppale ñu ñun jigéen ñi jàppale ñëpp ak boroom kër yi jàppale ñu bu baax wàññi yëpp oyofal ba mu oyof. bu nu sukkandikoo nag ki nga xam ne mooy délégué marché bi moom mi nag dellu di xamle ni ko dafa nekk zone boo xam ni lépp war na mën a yomb ba tax muy ñaan ndaw ñi ngir ñu dellu ci mbay mi. war na war na mën a yomb parce que zone bi ñu wër yëpp yëpp yëpp yëpp. la boo xam ne wax dëgg fa yàlla war nañ cee mën a gis sunu bopp bu baax. parce autorité war nañoo bàyyi xel ci loolu jeunes yi ñu jéem a seet jox leen suuf soo xam ne dañuy war a mën a liggéey jeunes yi tamit am courage wu nangu liggéey dem liggéey liggéey bi mooy dem wuuti pour mën a dem ci mbay bi. seeraay njëg yi nag doon na lu jaaxal askan wi. ba tax ñoom ñi ñoo ngi xaar ci gouvernement bees bi ngir mu dimbali leen ci lu ni mel.